ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر الوقت ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر الوقت asalaamaaleykum mbokk yi tey la dibéer fukki fan ak ñeent ci weeru tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa dëppoo ñaar fukki fan ak juróom ci weeru suliya ci atum ñaari junni ak nit ak benn fukki fan ñeent bokkul ci lim yu fatt lim bu rafet la kon tey ci dibéer ji rafet na ci lépp ba mu des ku ca wala ku ca tàggoo ñaanuk bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci fitnay àdduna maa ngi lay ñaan nga musal ma ci mbugalum bàmmeel allahumma inni aoudu bika min fitnati dunya wa aoudu bika min adabil qabr xadiisu bis bi bi sallallahu alayhi wa nee na law anna libna aadama waadiyan min dahabin ahaba an yakuna lahu waadiyan doomu aadama bu amoon aw xuru wurus du ko tee bëgg mu doon ñaari xur walan yamla faahu ila turaab doomu aadama daal gimiñam dara mënu koo feesal lu dul suuf wa yatuubu llahu taab sunu borom nag dana nangu njëggalul ku tuub dellu ci moom xadis bi Buxaari moo ko nettali ود سلامك بغير ودي لمن ما لنساك قدي مد سلامك